Imaginez, Ok, ok. Imaginez, bon, imaginez. Le bon, le bon, le vrai, le vrai, le vrai. Ma génération, ma génération, ma ma ma ma ma, ma génération, ma génération, ma génération, ma ma ma ma ma, ma génération. Il est 21h un peu partout dans le monde en Greenwich Meridional Time. Amis téléspectateurs de la première chaîne de télévision privée du Sénégal, Top c'est reparti dans votre émission Ma Génération. Alors Ma Génération, c'est une émission qui parle d'actualité et euh, ce qui pourrait être des thématiques yoo xam ne dañ ciy waxtaanee jëmale ko ci euh, li nga xamante ne moom moo di lu ndaw ñi di yëngu ak li nga xamante ne ni moom moo di suñu religion ak ay débat la daal ay thématiques la yoo xam ne yu ci nekk dañ ciy jéem a xuus ngir comprendre mbir yoo xam ne am na ci tey jii lee dans ma génération dañu am euh, waxtaan wu ñu bëgg a samp ngir waxtaanee ko ñi nga xam ne ñoom ñooy ay acteur ci wàllu diine ak rab ndax ñaari mbir yu ànd la est-ce que lu ñu mën a doxal la est-ce qu'il y a quelque chose que l'on doit retenir par rapport à ces informations la raison pour laquelle Karim Xurum Xaq qui euh, vient d'arriver dina toog ci chaise bi ngeen seen ci geneen wet gi ñu am fi ki nga xam ne moom moo di Oustaz Mouhamad euh, kan nga xamante ne ni moom jàngee na foofa ca Fass Touré la Eliman la it ci euh, day jiite julli euh, mbiru diine xam na ko di ci dox di ci gëstu moom mooy nara nekk ki nga xam ne moom moo ñuy wax li yàlla wax ci alxuraan bu sell bi lan la hadis yi wax borom xam-xam yi ci wàllu téere yi lan la ñuy indi ci ay hadis ainsi de suite ainsi de suite ñu comprendre ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo di acteurs yi nekk ci hip Euh, loolu ñuy def est-ce que liñ ciy dugal diine est-ce que diine nangu na ko en réalité qu'en est-il de la question on vous donnera l'opportunité peut-être de nous appeler avec les numéros de téléphone qui vont s'afficher tout à l'heure à l'écran avec l'aide de Pamay et à la réalisation Karadio Babacar euh, ñu ne salaamaaleykum Oustaz mi nga xam ne mu ngi ci studio bi Oustaz ñu ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum ñu leen di fay ñëpp macha allah. mbaa yéen a ngi ci jàmm. alhamdulilah rabbil alamin naka tey. sant bu baax di leen ziyaara ci ajjuma ji. Ah, ñu ngi lay ziyaar bu baax ñu ni tamit. Euh, bëggoon na euh, samp laaj waxtaanee loo xamante ne nii ñu bëri ñu ngi déglu musique mm-hmm. ñu bëri ñu ngi déglu rab book laay wax parce que c'est une émission de hip hop à la base. Mm-hmm. Euh, Oustaz yow di nga déglu rab war a xamoo li ñuy wax. doo koy da koy déglu de temps en temps du ma déglu. même fa kastalu sax. dinaa ko dégg waaye du ko déglu. dinga ko dégg waaye doo ko déglu lu waral boobu choix. lu mel ni nga romb ci mbedd dégg muy kër kër yi. Mhm. waaw waaye pour nga toog nii jël ko di ko déglu nag. Mhm. dëgg dëgg aw ma temps bi ko. déedéet dooy faral di def loolu. non du ko faral en attendant que euh, Amadou ñëw euh, takkal ki nga xam ne moo di Karim Xurum xàq micro ngir waxtaan wi am solo bëggoon naa xam lan mooy sa choix. Mm. ba tax doo déglu musique wala rap bopp. comme spécialement moom moo ñu intéressé oustaz su ma juumu ci présentation bi. Ah, waaw alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mbokk yi nga xamante ne ñoom lañ fi fekk mhm. rawatina ci bis bi nga xamante ne bis bu barkeel la waaye waxantuma laak loolu mu bokk ci bis yi nga xamante ne mooy fukki fan yi njëkk ci eh, weeru tabaski di bis yu màgg fa borom bi subhaanahu wa taala mhm. kon ñu ngi sant yàlla bi ñu boole ak yéen mhm. ci bërëb bi waaye tamit di ziar ki nga xam ne moom mooy kilifa bërëb bi moom mooy di eh, El Hadj mhm. ak mboolem ñi nga xamante ne ñooy jàppalante moom eh, ak liggéey bi eh, laaj bi nga laaj laaj bu yaatu la mën naa ne daanaka mooy sababu sunu daje fii mooy sababu sunu sunuy weccante xalaat waaye su ma la ma ñaan la rek Euh, laaj boobu nga laaj mhm. ma wutal ko euh, ndëstalaay mhm. wala wutal ko muqaddima euh, ngir mën a yegsi ci li nga xamante ne moom mooy moom mooy sa laaj mhm. li ci jiitu moom mooy lislaam jamono yonent bi sallallahu alayhi wa li mu gën a sori jamono rek daanaka lislaam di dund ak tumuranke ci njabootam ci gëm-gëmam ci pas-pasam ci euh, man nga ne ci li doomu aadama di dundee lépp mhm. waaye li ay doomu aadama di gën di jege euh, seen dund yonent wala seen jamono yonent maanaam di gën di niitu ci leer yi nga xamante ne moom la ñu indi mhm. bokk na ci yooyu nag nga xamante ne euh, yu yara yu jar di jàngat la ci waxtu yi ñu toll moom mooy li aju ci wàllu lépp luy aju ci liy daganal wala di araamal mhm. nga xam ne question daganal ak araamal loolu nekkul ci loxo nit ñi mm-hmm. bal sax nekkul ci loxo yonent bi bal ci loxo yàlla la nekk mm-hmm. yàlla mooy tànn lu ko soob ne lii mooy li araam mm-hmm. tànn lu ko soob ne lii mooy lan li dagan kon foofu li jaadu ci uh, kenn ku nekk ci ñun mooy yëg ne araamal ak daganal aquk yàlla la yàlla mooy uh, comme niñ ko junjee léegi mooy uh, daganal lu ko soob di araamal lu ko soob ndaxte sunu borom yàlla mu ngi wax ci alquranil karim baaudu billahi min alshaytani arrajim ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا mu ne yow nit ki bul dugg ci loo amut xam-xam bul wax ci loo amut xam-xam mm-hmm. ndaxte yëgal na sa cër yi ëllëg dañ leen laaj la ñu waxoon fii ci lan mm-hmm. fii ci àdduna kon loolu lu jara lan la euh, lu jara bàyyi xel la macha allah dinañ ci dellu siwaat ndax mhm. euh, laaj bi moo nekkoon ndax yow Euh, di nga déglu rap nga ni ma doo ko déglu euh, di nga ko dégg waaye doo ko déglu. et c'est très clair ce que vous venez de dire maanaam li nga ci li nga ñu ci jot a xamal euh, ndax araam na wala dagan na c'est une grande question très large. nga indi ñu ci xam-xam ne yàlla moo xam li araam ak li dagan te moom moo ko mën a décider du doomu aadama. Karim Xurum Xaq moom ñëpp xammee nañ ko ci wàllu musique boobu nga xam ne moom moo di hip hop. fii ci Sénégal am na ci lu bëri boo ko mënee wala muy am prise de parole dans la dans les instances publiques, c'est grâce au hip-hop. Karim Khouroum est un rappeur que nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir pour la première fois sur le plateau de ma génération ngir waxtaanee loo xam ne euh, werante la def déjà bi ñu annoncé sujet bi sur les réseaux sociaux dagan na daganut Karim Khouroum ginnaaw bu ma la nuyoo ba bàyyi la nga nuyoon teg téléspectateurs yi ma grande question ce serait yow mi nekk ci hip-hop yow mi nekk ci rap ndax dagan na d'abord nga nuyoo. dama lay nuyu Pape Sidi. présenté wu euh, di ñaan yàlla rek bañ fex lu ñuy xebee mm. ok lii d'abord xam nga dafa am loo xam ni man dama bëgg mu leer balaa ñuy door dara mu leer nañ mooy man nekk ma fi di daganal musique quoi mm. Mm. man ñëw ma fii pour daganal musique ni musique dafa dagan parce que contexte dafa xaraam waaw ah, damay ñëw c'est-à-dire xam wax bu nekk c'est-à-dire xam nga contexte laay wax ko cest à par exemple man dama gëm ni man man dama gëm ni musique bi nga xam day jariñ nit nit lu koy jariñ parce que lu lay jariñ mooy lay jariñ fii ak l'au-delà mhm. parce que jariñ loolu la jariñ du affaire àdduna kese donc nit lu koy jariñ rek loolu xaraamul mhm. foofu laa waxee jariñ quoi dama indi signifi euh, euh, maanaam définition jariñ ci man mhm. mooy loo xam ne fii la ak lau bi nga xamante ni yow dalay jariñ dalay jariñ fii jariñ la l'au-delà musique boobu mënul xaraam man góomun dafa xaraam léegi contexte yi laay waxee quoi léegi man par exemple man rab bi may def yoo xam nga ma at xam nga ma xam nga rab bi may def macha allah man musuma rab rab bu góor a jigéen di kole Mm-hmm. man musuma rap rap boo xamante nii boo mag mënu ko dégg wala xale mënu ko c'est-à-dire xëy na peut-être clash bi lay nekk mm-hmm. te clash bi en général pour delloo si waat rappeurs yi ne leen yéen yéen a ngi ànd ak góor jigéen yi mm-hmm. yéen yéen ngi ànd ak yi yéen dekatu leen rap bi ci norme yi hip hop nekkoon parce que ku nekk ak contexte yi ngay jàppee hip hop parce que hip hop aussi musique la boo xamante ni il faut ñu comprendre ni dafa am lu mu indaale am message yu mu indaale am lu ko tax a jug ñun suñu définition hip hop américain dañ ko def pour ñoom di foo di béggee ñun ñu def ko jël air bi def ko rocceeku A bi mooy ci àdduna yi P bi di puukare. Mhm. te loolu pour man génn religion. Mhm. ça dépend kon ku nekk ak contexte yi nga koy jàppee. bien sûr ku nekk ak contexte yi nga koy jàppee. mën nañ mën nañ mën nañ sukkandiku ci loolu mhm. est-ce que euh, la grande question aujourd'hui parce que j'ai préparé un peu le sujet dem naa ci ay euh, conférence yu mag ay borom xam-xam di ci wax ñii nee nañ musique dagan na surtout ñi bokk ci giir Malik mooy fi Sénégal sukkandiku ci euh, jokk ci diine l'islam am na ndax am na sa ñenn ñoo xam ne dañ doon reprendre ay hadis yoo xam ne dañu doon jouer instrument mm-hmm. ah, ñoo xamante ne nii ñu jege woon yonent bi la bu ñu organiser waan ay cérémonie ba yonent bi bi muy dem juge Makka di ñëw Medinatu na bi biñ koy teeru dañ ko teere ay tabala mm-hmm. donc bu xaraamoon dañ koy teel a waxee foofu amul mm-hmm. aussi benn saar buy firndeel ci alxuraan ak ni mu yaatoo ne musique xaram na oustaz euh, ban leeral nga indi ci ñi nekk ci nuance boobu sama mor sama maas waaw alhamdulilah wasalaatu salaam ala rasulillah eh, comme ni ma ko junjee ci tàmbali gi eh, tomb bi dafa nekk tomb bu am a am solo te sunu jubluwaay ñu ñëpp benn la mhm. mooy bëgg yegg ci li yàlla bëgg akub yonentam mhm. loolu jullit bu ko dégg rek loolu ngay lan loolu ngay bëgg mhm. moo tax ma ko doon ubbee di nga xamante ne noonu laa ko doon jéem a ubbee léegi eh, di yeggali Euh, li ma doon wax tuuti ñëw ci sa laaj. waaw nga baal ma ak ci mm. noonu may doxalee parce que <laughs> euh, mbir mee ko laaj. waaw nekkul lu simple. Mm-hmm. loo xamante ni da ngay tëb rek wax bal lu nekk day fi ngay jaar ba yegg ci. Mm. Euh, ma indi beneen aaya. Mm-hmm. sunu borom yàlla day wax ci alquranil karim. wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadib. hada xalaalu wa hada لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب mu ne bu kenn ubbi sa gémmiñ di wax ne lii dagan la wala liilu dagan lii araam la fekk yow bi nga koy wax yaa ko teg ci sa bànneexu bakkan wala yaa ko teg ci leneen tegoo ko ci ne da ngay tuxalal nit ñi li yàlla wax akub yonentam mu ne ki nga xamante ne da taxaw di waxal yàlla akub yonentam li mu waxut mu ne yow moomee mu ne ñooñu du ñu rëcc yàlla nañ ci yàlla musal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit nee ñu waxal yàlla maanaa yëg leen ne nit waxal ma dara lu ma waxut wala mu waxal ko yàlla nduroowul ak nga waxal ko sa morom wala sa xarit mm-hmm. ndaxte waxu yonent bi dañ ciy tabaxee diine mm-hmm. ba moo tax mu ne képp ku ma waxal lu ma waxut préparel sa seize ca lan ci safara yàlla nañu yàlla musal ci safara léegi nag ci laay ñëwee nag ci li nga xamante ne moom mooy sa laaj kon li jaadu mooy wàllu dagan ak araam comme ni mu feeñe woon ci théâtre yi passé hmm. eh, kenn ku nekk wuti ku lay daganal ke wuti ka lay daganal ci ay mbir yu xam yu wuute la hmm. moo tax ma ne tomb bi jaadu na bala ñu cee dugg ñu leeral eh, maanaam mu nekk ab ubbe boo xamante ne moom la ñu hmm. ubbee mbir mi nag door a yegg ci li nga xamante ne moom mooy atte yi léegi ngir ñëw ci sa ci sa laaj eh, way cosaanu woy mooy li ñuy tuddee lan poésie wàllu woy mhm. way moom ci boppam mooy lépp loo xamante ne lu nu lu nu wutal ay norme la am ay kàddu yu mu commencé am fu mu tëjee nga xam ne soo ko déggee yéeg de lii dafa am euh, rythme bu mu lan bu mu àndal loolu moom mooy cosaanal woy mhm. lu mel ne ma toog di wax ay kàddu wolof walla ngaw toog di wax ay kàddu français yoo xamante ne ku ko dégg day xam ne kii mu ngi lan mu ngi def taalif mhm. wala mu ngi def li nga xamante ne moom laa doon léegi euh, woy nag ñaari xaaj la benn xaaj bi maanaa ci côté boobu lay wax man yeggaguma ci musique dinaa ci ñëw léegi mhm. benn xaaj bi bu dagan la beneen xaaj bi bu araam la xaaj bi dagan mooy bépp wax boo xamante ne day woote jëme ci njub wala di tagg yàlla wala di bàkk yonente bi salallahu wa sallam wala di woote jëme ci li nga xamante ne moom mooy ak mbaax wala di woote ci li jëme liy saxal jikko yu baax yi fekk jëmmi ay kàddu rek la yoo xamante ne àndut li nga xamante ne moom mooy euh, waaw instrument loolu mooy eh, côté boobu dagan la hmm. beneen xaaj bi mooy bi nga xamante ne bu ñëw la di xëcc ci lu bon di xiirte ci ak njaaloo ala seen yàlla nañu yàlla musal wala di xiirte ci li nga xamante ne moom mooy violence wala yéni mel hmm. wala di wax li aju ci wàllu bokkaale ala sabil misaal genn jëmm ju daan wax ne wa mal kalbu wal xinziru illa ilahuna wa ma allahu illa ka rahibin fi l kanisa maanaa mbaam baak xaj baak Euh, maanaam ñooñu ñëpp mu jël leen def leen ay lan ay yàlla tëgg ko ay way genre way yu mel noonu lislaam da koo araamal waaw léegi nag ñu ñëw ci way woo xamante ne dafa ànd ak ay guitare ak ay nang mooy bi ñu tuddee li nga xam ne moom mooy musique mm-hmm. boobu nag mooy tomb bi nga xamante ne insha allah soo mee ci laay ñëw ci kàttanu yàlla ci kanam ci mm-hmm. Karim par rapport ak euh, rap mm-hmm. hmm? Mm, euh, bu ñu jëlee quintessence euh, su rap c'est la parole d'abord mm-hmm. l'instrumental a son importance am na solo ci musique bi mais nit ñi en général li tax ñu bàyyi yeneen musique comme salsa comme blues comme bachata comme merengue comme reggae comme ragaton ñëw ci rap c'est parce que au-delà de la musique il y a un message des fois dénonciateur des fois engagé et des prises de position des fois même conscientisant les, les populations Euh, la parole alliée à la musique en tant que rappeur euh, ndax rap bi ni muy doxee fii ci Sénégal da nga gis ne quintessence bi lu xaram la wala lu dagan la yow en tant que acteur que d'abord euh, le rap la musique même dafa dafa dafa dafa dafa bokkul ak yeneen musique la musique même dafa dafa am lu muy wax mhm. bitu hip hop gis nga ni muy def ça dafa fu mu jógee mais c'est composé par les mêmes instruments beat basse mais attends mhm. alxuraan mhm. mélodie la xam nga musique c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille bien sûr alxuraan musique alxuraan day génne ci boo ko tegee ci table message bi day génne comme musique ni muy génne son alxuraan son la musique son la mhm. lii son la lii son la mhm. léegi ni nga koy combiner bu mu neex a dégg loolu mooy def musique bi mhm. donc dafa am loo xam ne léegi il faut nga mën a def la part des choses ci li ngay am nan koy amee ak lan lay jox pour man loolu mooy foofu la foofu la affaire bi nekk parce yàlla li mu namm ci li mu yàlla li mu namm ci li mu dénk doomu adama yëpp moom te yittewoo ko adoré ko loolu moo tax yàlla bind àdduna bi alxuraan baqara ba li ci nekk yëpp mooy doomu aadama bi mooy tutere yàlla yi ak digleem yi ak nettaleem yi ba pare mhm. gàddaay jëm ci moom adoré ko loolu rek moo nekk ci alxuraan de lii nag mooy essentiel bi mais su fekkee ni yow est-ce que mos nga dégg Pape Sidi ku déglu salsa bañ ñel dafa déglu salsa ba daw dem tuub bon mosoo ko dégg dañuy sol costume mais mosoo ko dégg Pape mm. Sidi Fall mosoo dégg ku ne dafa déglu mbalax ba tuub soo ko dégg mais avec le rap xam nga Talib Kweli Talib xam nga xam nga ku lii daw raw xam nga ko. Mm, en Amérique ñaata américain ñoo xam ni rab tey ñi ngi màkkatal mu seen sikkim ñi la toll. Mm-hmm. te à rab moo tax ñu tuub. Mm-hmm. c'est-à-dire bokkul ak beneen musique mais nag xam nga tey euh, euh, oustaz loolu moom mënu ko comprendre tey man li ma sañ wax man ci ci diine bi. à travers musique oustaz ñemewu ko wax. Mm-hmm. man li ma ñemee wax au titre de rappeur oustaz man man fi ne man damaa gëm ni man kilifa diine la mais oustaz du ma ko du ma ko nangu parce que moom xam nga ay alxuraan la may indil day indi ay alxuraan dalin la dalin dalin boobu nag maa moom fu ñu taxaw ci moo bokkul fi ñu taxaw bokkul man su may communiquer par exemple une conflit de génération quelque part. non non du conflit de génération kenn du ko mm. foofee déedéet moo tax c'est-à-dire mm. parce que alxuraan ba mu jógee ba léegi amul benn baat boo xam ne soppeeku na si te jamono bu nekk day maase ak jamono mais léegi nag dama ne kii kii jël alxuraan bi ki koy jël moom nan la ban dégg am ci dégg bi dégg alxuraan bi Pape benn paa benn imam xam nga football dafa xaram dañ koy wax dañu dafa xaram mhm. benn imam dafa ñëw rek booy dañuy football gestu rek gis imam bi taxaw di xool football bi i mu ne daw ji ñu ne ko waaw mu ne xam naa ne bu nit ñi yittewoon yàlla comme ni ñu toppee bal bi kenn ku nekk di ko xëccoog sa morom mhm. wala téere yàlla bi kee taxaw ci digg ñaari bant yee bu fexoon bu buntu këram dara lu bon du dugg comme ni muy teree bal bi dugg fa kon adduna avancé mhm. football mënu xam ci kooku parce que cest à moom laa xam contexte yi ngay xoolee la léegi à travers man gis naa ku déglu musique rap ba daw tarbiyu ci dem uti yàlla mhm. dem jàngi alxuraan bari na ci takk laxasaay bari na ci mais léegi musique boobu xaram na parce que li tax yàlla di xaraamal mooy loo xam ne lor doomu aadama mhm. fii ni yow dafa dafa la yàq ci a moytu mhm. man su ma toogee si man man aw ma gàcce taxaw ne rappeur la parce que dama diñ ci rappeur yi te page image bu noobu laay laay présenté ci hip hop bi. comprendre man imam imam bu Ligue des imams. man dañ toog conférence de presse bi ñuy def libération bi ñu def njëkk def fële imam Dame man rek maa fa nekkoon rabal imam Dame ne ma rabal yow. yow sa rab xanaa amul rabal te ci télé laa koy waxee imam Dame xam nga ko. xam naa mu ngi fi deux xam na gars yi gënuñu ko jàng. dëgg la gënuñu ko ku am xam-xam la macha allah. Mhm. al amin xam nga ko al amin. mais dafa ngi ñëw léegi ci yow rabal. yow mhm. ñu comprendre mooy contexte yi ñuy comprendre affaire yi léegi nag ndax dafa xaraam wala xaraamul loolu imam ustaas su koy wax aaya alxuraan la lay indil. Mhm. mais ci ci contexte yi lay wax. mais amul aaya loolu mooy problème bi parce que posé naa question boobu léegi euh, mhm. ustaas. bu mhm. mu tontu aaya bi mu wax ñu ban mu wax musique dafa borom xam-xam am na benn waxtaan benn conférence bu ma déglu tey. bi may préparer émission bi ñu ne dafa am jamono yonent bi di euh, taxaw di def ay xutba di waar nit ñi ngir ñu jóge ci euh, ndëngte gi ñu nekkoon ak jaamu xërëm yi ngir dikk ci lislaam am benn waay ju jubadi neex làmmiñ dem Rome ut fa benn téere bu neex di wax loo xamante ne ni day yàqal lislaam ci la benn aaya wàcce di ko tëkku moom mhm. ci waxam ju neex jooju ak ni mu ko doon waxee mais amul fenn fu ñu mentionné ne dañu fa dag daganal wala ñu xaraamal fa musique te lu ñu xaraamalul wala ñu daganal ko ci l'islam jusqu'à preuve du contraire mën nit ñi mën nañ ko def mm-hmm. mais à ce que je vois yow mi euh, ci sama njëlbeenu euh, laaj moom mooy ndax danga déglu musique nga ne ma déedéet mm-hmm. euh, di nga ko dégg waaye doo ko déglu mm-hmm. ndax bokk nga ci ñi gëm ne musique dafa xaraam ak lan fan ngay sukkandiku pour indil ñu argument yooyu ah, barakallahu fikum waaw xala balaa kat laaj boobu nga laaj am na solo foofu rek may ziyaare sama mbokk Abdul Karim bu baax baax. maa ngi lay ziyaar bu baax imam. Eh, ci kàddu comme ne alquran eh, la loolu. moom waxuma musique la de waxuma déet moom. Ah, maanaam son la son. waaw son la waaw son da ngay son waaw son son mooy li ngay dégg mooy li son la. baax na waaw nangu nangu naa ne nga ne allo allo ma tamit mooy. li lay wëlbati jëmale ci sa borom. loolu borom bi moo koy tëral nee la lii moo la indi. Mm-hmm. du ne kenn ku nekk yaay wëri lay indi. wala yaay créé lu lay indi bal yàlla moo lay waxee yegsil ba pare nee la yoon wii ngay jaar mhm. mooy yoon bi yonent bi tëraloon jaaree ci saxaaba yi ba ñu yegg ca la yàlla namoon muy ngërmandeem loolu mooy jaarukaay loolu mooy li ma bëggoon sànni ci kàddu mais il faut pas nier le fait que am na ñu xam ne dañu déglu rab mhm. ba tuub nekk ay jullit mhm. am na ñoo xam ne dañu déglu rab ba bàyyi seen yëf yi jërëjëf waaw dem jël tarbiya wala ñu nekk tey tey rab moo xewle te dañuy wax ne ku ku ràcc sa kanam rek mu dëll eh, eh. hmm. amaana moom li mu wax ci rab keneen dina ko wax ci lan mbalax misaal saa keneen wax ko ci mbalax keneen wax ko nang na non misaal laa ko jox maa maa ngi ñëw c'est que imam c'est que xoolal télé hmm. télé graaw dëgg la te wax bu nekk dafa am dafa am loo xam dama laaj Pape Sidi Fall j'étais hmm. très clair xam man samay wax man dafa dafa leer ma dama bëgg lu leer. ma su ma yàgg leer dama xaar ma ñëw moom dama ne ko ndax xam na ñu bari ay junni yi xam ne dégg mm-hmm. tamit pareil. cest à bi nga xamante ne mooy tax doomu a songu àdduna di wan ginnaaw yàlla. Mm-hmm. pour man musique boobu moo xaraam. mais pas rab bi ñuy def ñun. Karim bàyyi ko bàyyi ko mu continuer su a a leer léegi xaaj bi nga xamante ne la ñu tuddee lan moom la ñuy wax musique xam nga lislaam bokk na ci ay njàngalinam mooy euh, day indi benn règle générale mhm. atte ko wax ay atteem mhm. waaye sew-sew yi nekk ci biir yi yooyu nit ñi ñooy jël euh, règle générale bi nattee li nga xamante ne moom mooy xew-xew yi ala sami tey man ñëwuma ngir wax euh, mbalax maanaam tey dama ñëw ngir wax mbalax dagan na wala déet mm. wala dama ñëw ngir wax rab dagan na wala déet mm-hmm. Mm-hmm. wala salsa dagan na wala déet mm-hmm. ah wala reggae wala jazz yow da ngay wax li yàlla wax ma léegi man damay ñëw wax euh, manière générale musique ci jëmmi boppam maanaam lan la ci yàlla wax lu ci yàlla ak lan la ci yonent bi salaa sallam wax ak lan la ci mag ñu baax ñi déggee woon ba moo tax ngir bañ a guddal man ñaari aaya laa indi bismillah ak ñaari xadis aaya bu njëkk bi sunu borom yàlla subhaanahu wa taala mu ngi ci suratul isra aaya 64 sunu borom yàlla mu ngi ciy wax di wax ak ki nga xamante ne mooy iblis wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi xaylika wa rajlik وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما ma yaiduhum alcheytaanu illa gurura li ab aaya la man su ko firi woon ci wolof ma wéet firi ko mën naa ci am dégg-dégg bu wuuteeg bi ci Karim di am te ñu ne nag non affaire prix prix yin la doonu ko baaxee nga léegi waaw ma ngoog léegi li ñuy jàppale ci mm-hmm. wàllu prix alquran ak firi yoon bi sallallahu alayhi wasallam mooy dañuy wax alquran ak sunna ci déggin gi ci saxaaba yi amoon ak man ñu baax ñi mm-hmm. non man ni ma ko déggee sens bi déedéet du ni ko Karim dégg waaye ni ko saxaaba yi jànge woon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam aaye bi nan lañ ko déggee lañ ko déggee suñu borom dafa ne di wax ak iblis ne ko was wastafziz mooy këfal jëlal ah naxal ñu la soob ci sa kàddu bi sawtika léegi ibnu abbas nga xamante ne yonent bi moo ko ñaanaloon ne allahumma allimhu tawil ah yow yàlla yàlla na ko yee ci dina faqihu fi diin wa allimhu tawil mhm. yàlla na ko may dégg-dégg diine te nga wërsëgal ko mu comprendre alquran mhm. bi mu yeggee bi sawtika nga xamante ne ci sa kaddu lay firi ibnu abbas ak mujahid ak borom xam-xam bu tudd dahaak ñu ne huwa alghinaau wal mazamir mooy musique mooy bépp woy boo xamante ne dafa ànd ak ay gitaar aki tabal ak ah, ak yeneen yi nga xamante ne moom la boole comme ni mu xumbee ci sunu jamono yi mhm. kon lii la borom xam-xam yooyu bi sawtika ne baaxul waaw loolu yàlla mu ngi ci jublu lan mu ngi ci jublu euh, musique te loolu la yàlla tuddee kàddu seytaane mhm. kon boobu mooy aaya bu njëkk bi mhm. insha allah tey ñaari aaya yooyu rek laa indi ñaareelu aaya bi euh, sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ngi ciy wax wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiisi liyudilla an sabilillahi bi بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين mu ne am na ci nit ñi ñoo xamante ne dañuy jënd lahwal xadis lahwal xadis su ko doon firi ci wolof lahwu caaxaan lay firi ay kàddu lay firi mm-hmm. waaye man su ma firi ko Karim wéet ku nekk mën nga ci am lan ni nga ko déggee kon nanu jëlaat aaye bi delloo ko ca ña yonent bi jàngaloon mm-hmm. ñoom ñu firil ñu lahwal xadis la lay firi mm-hmm. moom mooy ay kàdduy caaxaan waaye eh, lan lañ ñu ko firil léegi ñu dem ci ku mel ne mujaahid firikatub alquran la moom bi mu yeggee ci aaya bi dafa ne huwal ghina mooy musique mm-hmm. nee la xaaj bi la nga xamante ne moom mooy eh, eh, poétisme muy wàllu toog taalif loolu taxul ñuy wax su fekkee ne lu baax la nit ki di wax te àndut ak li nga xamante ne moom mooy ah instrument loolu taxul ñuy wax mm-hmm. waaye bi ñuy wax mooy bi nga xamante ne moom ànd ak ndagar wala yii xew ci lan ci jamono waaw mooy instrument yi boobu moom mooy bi ñuy wax ci ay léegi bu baaxee te ànd ak instrument daganul waaw même daganul Pape Sidi Fall xam nga instrument ma yeggali ma yeggali aay bi rek après a ñëw <laughs> kon Ibnu Abbas mm-hmm. mu ne lahwul hadith Euh, ak jaabir ak mujahid ñi ay borom xam-xam la ñu ñu ne huwal ghina moom mooy musique mhm. ibnu mas'ud dañ ko laaj nga xamante ne moo daan wax ne amul benn aaya bu wàcc ci alquran lu dul ne xam naa kañ la wàcc fan la wàcc lan moo ko taxa a wàcc mhm. ak lan lay firi mhm. nga xamante ne moom fóore la woon ci quran biñ ko laajee aaya bi lahwal hadis moom ibnu moom ibnu mas'ud dafa ne wallahi alladi laa ilaha illa hu innahu alghina mm-hmm. maa ngi giñ ci yàlla mi nga xamante ne amul benn buur bu nu war a jaamu ci dëgg bu dul moom mm-hmm. mu ne kàddu gi li muy firi moom mooy musique mm-hmm. kon ñaari aay yi rek ñoom laay doyloo it gis nga man firi lu ma la waaye dama la bàyyi saxaaba yi ak taabi'un yi firi la par rapport ak instrument yi même li ngay wax bu baaxee bu nekkee ci instrument wu rab daga la jógee c'est-à-dire Euh, instrument musique rap dégg nga grosse caisse beeg cylindre bi ni muy mel quoi. Mhm. mu def tuk tak dafa am lu muy seet mhm. mhm. bi nga xamante ni dañ ko ñëw a teg di dagara wala di fecc déedéet. léegi jamono mooy dox nag ba lépp loo xamante ni yow dafa dafa am lu ñu doon rek. après dañ koy yàq. rabu Galsen bi sànq sa question bi nga posé. hip hop boo xam ni rab bi nga xamante moo tax ñu naan rab amatul. amatul. amatul là ça ça ça s'adresse directement au hip hop du Sénégal. hip hop amoon tout c'est du n'importe quoi rab bu muy jug battement de cœur la hip hop ñu ko jëlee ci battement de kër tuk tuk foofu la grosse caisse bi jugee mm-hmm. nga xam ne battement de cœur day ànd après réflexion bi foofu la hip hop jugee nekk loo xam loolu du woon pour fecc su waay sa battement de cœur mënoo ko fecc mais léegi dañ dem ba après créer trap topp franc yi góor jigéen yi dugg ci musique bi juif yi ñëw ànd ci jaxase ko mais rap ba muy nekk rab dëggantaan c'était pour defar nit yi te pour man dafa am loo xam ne c'est très important pour ñu bàyyi ko xel. mais li Oustaz wax aussi. il y a quelque part. Mhm. Mhm. Euh, met tout le monde euh, dans le banc des accusés euh, bu fekkee ne li ngay wax baax na sax bu tegoo ci instrument baaxut. non non non non mm. loolu firi bi mu indi la wax ma Oustaz tey foofu point man du ma jubóog moom foofu mooy. Mm-hmm. man dama jàpp ni ima Oustaz imaam a ngi taxaw xam imaam moo gën a garaaw. Mm-hmm. imaam moo gën a garaaw rapport duñ sikk sàkk ni imaam la. Mm-hmm. ñu mokk na mu taxaw di xutba ko dégg fekk rappeur bee ko gën 15 fois ci ci wàllu yàlla ci wax yàlla ci wax fekk sans rab bi wax moo gën junni yoon noonu ni baatu yàlla yi parce que doxewu ko jëfewu ko ba pare da ko jël ak contexte sama profit boppam ba boo gën a graaw léegi nag ñun est-ce que jamono doxul ba yow tey dëgg dëgg la rek dëgg bu jugee ci njaago bi juif bi dëgg dëgg la alxuraan alxuraan la moom norme ay charte la mais dëgg dëgg la léegi dëgg nag moom

moom ma dugub lañ jàpp. Hmm. duur ko duuru duur tegal la ci mburu tegal la ci laax tegal la ci leneen tegal la ci leneen tegal la ci leneen c'est que loolu yàlla dafa doy waar. Hmm. mbiru yàlla moo yéeme. léegi na ñun dañoo nangu ni alquran kenn mënu ko contexte. Hmm. dafa mat sëkk nag. mais dafa am nag lu loo xam ni mais imaam xadisul xudsi mi ngi ci alquran. déedéet. mais ñeme nga ko weddi. mais lu am la. lu am la ñaata yonent lañ wax ni moo am. ñaata yonent lañ wax ne ñoom la yàlla yónnee 313. Mhm. amul beneen euh, euh, nombre bu ñu ci dolli boo xam ne ñoom feeñuñu. Mhm. loolu am na wala amul imam. am na bu baax waaw léegi ñooñu am nañu. Mhm. foo def imam xam nga leen. c' est que loolu mooy problème kii du yonent parce que téere bi xam ko te yàlla am problème ak moom. parce que ci téere bi ñaata yonent ñoo am téere. 5 lañ. la yàlla yónni yónni 1000 quelque. léegi nag dëgg yooyu yàlla tas nag ci melokaan bu nekk nag dafa am dégg buy tax nga mën ko comprendre. nga dégg yàlla xam ne lii yàlla la kàddu yàlla day génn ci gémmiñu ku nekk ci àdduna di génn ci lu nekk ci àdduna surtout Sénégal rab bi ak sa man bëggoon naa xam aussi euh, par exemple instrument bi Maherzen di utiliser wala Umu Kalsum nga xam ne mag ñu bëri wala ñu bëri bu ñu bëggee diine dañuy déglu loolu muy tooyal seen xol di leen jegeloo yàlla di leen jàppaloo di leen julliloo te dañ koy teg ci ay instrumental même guitare bi même clavier bi même vent bi da ngay dégg sax ay zikarkat moderne yu bokk ci suñu ñu këru diine yi yoo xam ne dañuy dem jël benn clavier mu accompagner leen mm. je me dis est-ce que musique du lu spirituel parce que ngelaw la rek lu ñu bës manipuler ko ba mu génnee yenn sonorités yi te da nga koy dégg nit ñu koy déglu bay jooy jege yàlla lool mais oustaz loolu naka nga koy expliquer ak li nga fi wax euh, léegi waaw xanaa dolli tuuti rek ne diine euh, maanaam diine du wàllu nu ko nit ki gisee mm-hmm. diine du wàllu ni ma ko sentiré ma waxee ko noonu léeg-léeg mm-hmm. parce que Abdou Karim mu ngi maa ngi ñëw maa ngi ñëw Abdou Karim mu joxe gis-gisam <laughs> uh-huh. ak xam-xamam ci wàllu rab mm-hmm. moo tax euh, loolu dama gis ne ne beneen mbir la boo xamante ne bokkut ak su ñëwee di wax ci cadre daggan na wala déet parce que la mm-hmm. su nee dagan na wala déet loolu cadre lan la cadre diine la imam imam dama lay fàttali tuuti rek nga yeggal waaw imam ci émission rab nga toog de <laughs> waaw waaw émission rab nga toog nga est-ce que imam yow di nga toog bu ñu la woon émission ma ko sax <laughs> émission rab nga toog nii kon loolu mooy woon imam a quelque chose mm-hmm. attention kii lu ko may fitu mu taxaw ne damay woo imam mm-hmm. nga toog di firi aaya alxuraan ci émission rab mm-hmm. lii rab rek moo ko nangu eh, nii nii nii ñu ko nii nga ko nii ñu ko woowee ci wala nii ñu ñu woowee ci eh, palaas bi ci plateau bi mu aju ci wàllu rab même su demoon ci leneen dañuy ñëw. Mm-hmm. parce que amul yàlla nee na maa farat naa fil kitaab min shay téere bi bàyyiwul dara. Mm-hmm. lépp loo gis lislaam da ciy joxe lan. xam nga tey wàllu àdduna nangu nañu lu nekk. dañ koy teg ci xam-xam. Mm-hmm. dawal avion. ki koy jàng moo koy def waaye wàllu diine yooyu laaj nit waaw luy sa xalaat luy sa gis-gis diine du loolu diine mooy yàlla nee na yonent bi nee na ni ko saxaaba yi dégge woon il faut radical quoi ci point boobu ci noonu lay ñëwee ci ñaari xadis yi ma ci tànnoon yi laa lay jox ak ñaari xadis léegi aaya bi indi naa ko won la ni ko mag ña balaa ngay indi xadis bi baal ma rek tudd nga ma jéggal tudd nga ma léegi maahira ma ngoog mhm. euh, musique bi nga xamante ne moom la Youssou Ndour di def ah mhm. moom la yuusu Ndour di def mhm. bi Umu Kalsum di def moo gën a xaram ndaxte jigéen la jigéen dañ ko bañ ba nee la bul xutba ci jumaa yow waxatuñu nga toog ñuy gitaar ngay xee xee xee loolu foo la mën a dagane tey fu mu toll nii musique gu jigéen mu gën a araam fuuf. waaw jigéen ju musique moom dégg naa dafa ci kaw lan ci kaw ci kaw euh, góor ànd ak ne lépp lan lépp a yem. Mhm. waaw foofu laa doon ci ay wàllu musique moom lépp loo xam ne dafa ànd ak euh, yooyu euh, ndagara walla yooyu. Mhm. ñu fiy tudd léegi. Mhm. yooyu ala kulli xaalin li ci borom xam-xam yi wax. ndagara walla léegi alquran indi ko <laughs> ah. Eh. sunna indi ko. Eh. mooy yooyu yu araam la. Eh. moo xam lu baax lañ ciy wax. moo xam dañ ci waaraate. mais bu ne Mawla ya sal. tabalay jug ñu tëgg. charles yi nga wax yi mu àndali la yooyu ah, xam nga. Ah, l'islam mais loolu dafa dina araamal mbir. fekk jëmmi mbir mi moo tax mu araamal ko léeg mu araamal ko ndax li mbir ma di àndal ndax li mbir mi di àndal. tey li nga xam ne moom la Abdou Karim di wax su fekkoon ne ay kàddu yu baax la rek yu àndu teg mbir yooyu mu taxaw fii di ko wax kenn mënul taxaw nee ko araam waaye lan la mooy dafa am ay mbir yoo xam ne yonent bi dafay junj ne su àndee ak ay kàddu day araam mhm. kon ñun dañuy wax rek li yonent bi sallallahu alayhi mhm. su ko adduna bi yëpp euh, nangu woon mhm. loolu mooy li am suñ ko bañoon tamit loolu mooy li am mais c'est-à-dire xam nga Sénégal dañu am balaa ngay ñëw ci ñaari xadis ngay ñëw ci ñaari xadis yi Karim dafa am loo xamante ne nii mbooleem ñi am xam-xam si wàllu lislaam dañ ko nangu ñu ne musique li tax ñuy wax dafa xaraam Euh, en général surtout euh, rap nga xam ne moo ñu intéressé ndax on est dans une émission de hip hop euh, mooy ay jeunes ñoo si nekk te dañu war toll si seen buntu àdduna dañuy gis seen moroom yi di déglu rap di solo hip hop et puis ils sont obligés de les écouter on a le droit et le devoir de leur donner la bonne information mhm. concernant leur religion léegi li nga xamante ne moom la nit ñëpp d'accord ne dafa xaram ba tax ñu sukkandiku ci mooy concert da ngay dem gis góor ak jigéen ñu ànd nga gis ay jigéen ñuy way seen baat di jukkaw am ñuy fecc sol ay solu yu maa ngi fàttali <laughs> xool tey rek euh, benn clip bu Fatou Lawbe doole Lawbe Sénégal yëngul mu ànd ak ay kat ñu sol ay fuseaux mhm. loolu ça a tendance à se voir parce que yéen aussi bu ngeen defee production musicale da ngeen di dem concert te concert góor ñi ak jigéen ñi ñooy bokk sur même place seen gel yi des fois ñu jënd fa tux euh, euh, loolu naka nga koy mën a légitimer ak yow rap style bi ngay def parce que pour pas ñu choisir le c'est pas fort xam nga dafa am loo xam n Pape dafa am benn benn damay expliqué benn vite fait rek benn anecdote bu ndaw quoi dafa am benn ak jabaram di gis ay genre étoile de yu génn quoi ci ndox hmm. loo gi sànni quoi di hmm. ko mais yow mënoo sauver lii yëpp mu ne ko mais bii sauver naa ko hmm. man dama gëm ni conseil rab bu ma fa taxawee gàtt gàtt naa fa ni dina benn nit bu mu jëriñ te kooku bu demee këram conscience am dina ko sonal bi ma toog nii wax sénégalais yi may seetaan les jeunes nekk di déglu hip hop tey dinañ dégg ñu wax ci diine man ma indi ci émission rab bi loo xam ne na tax ñu am imam bu waxee waxee aaya fii ne nit mën na jaar fii muuru wala mu bàyyi nuyu jigéen wala mu dem dundi sunna mbaa mu bàyyi déglu musique waaw mais loolu mooy sunu mission mais loolu ça ça ça loolu mooy sunu mission non non attends mhm. xam nga man ñun hip hop li ñu ciy prôné dëggantaan mooy ñu àtte Sénégal charia te charia bu ñu àtte Sénégal charia ñun ñu musique mais ñun dañu ñëw xam nga dafa am personne personnage ak personnalité loolu ay mbubb la yooyu sol ci sa personne ak personnage booy utiliser sa biir personnalité bi nga xam ne yaa ngi ko jëmee ci Seydina Muhammad sallallahu ñu weranteeg imam yi xam ne ñun nga xam ne ñoom amuñu chance wu déglu wala talluñu sax alquran wala jaamuñu ko buñ toogee di déglu musique ñu dégg ci yàlla ci loolu dem dem jaamu ci mhm. moom laa ko wax ne ko ñaata prophète la yàlla bind prophète yi yàlla bind du ñëpp nga xam te pourtant 313 yi après dafa am 1000 et loolu la wax sànq. mais léegi 1000 et yooyu ana ñu. ma ko ndax imam xam nga xadisul xudsi mu ne ma waaw weddi wu ko mais kon xadisul xudsi ana xam nga mooy mooy li yàlla wax. te ñëwul ci alquran fekk yoon da ko nettali ci beneen sens. bu bokkut ak sensu alquran. ci gàttal daal mooy bépp wax boo xamante ne. maanaa bi ci yàlla la jóge waaye tëggin wa. ci yoon bi sallallahu la jóge mhm. am na ay téere yu ko baral beral ay kii mhm. maanaam xadiisul xudsi comme ni mu expliqué pour mu ma mhm. koy tëggin tëggin bu ko nit ñi mën a déggee nag xoolal loo xam ne mënul dañ man dama gëm man lépp luy jëriñ doomu aadama pour fii ak loolu de la xaraamul te moom wax na ko wax na wax na lu am solo mooy lépp loo xamante ne day jëriñ nit ki tey fii ak ëllëg araamul musique musique jëriñ léegi léegi maa ngi maa ngi ñëw maa ngi ñëw léegi lay jëriñ kan moo lay ne kan moo lay wax ne lii mooy jëriñ foofu mooy mbir mi mooy suñu bàyyee kenn ku nekk yaay tànn ne lii mooy li jëriñ su ko defee léegi euh, ka nekk ca dansul ba tamit day gis ne loolu mooy li am jëriñ kii yëngu ne loolu mooy li am jëriñ imam tamit bu kii def déedéet maa ñëw non non c'est que buñ ne la lan naam wax nga solo mooy li am njëriñ lu jëriñ nit fii ak lu de la waaw waaw lay delloo nit ci yàlla mooy li yàlla ne lii mooy delloo nit ci yàlla waaye du ne man li ma wax ne lii mooy delloo nit wala nit taxaw ne seetaan nit nekk jullit laa la wax de seetaan nit di wax affaire terrorisme ñu ne dañ dóor fi bomb mu jàpp ñu wax ko ci ay alxon mu dégg mu jàpp ko déggéen bi mu bàyyi diine bi waaw léegi léegi kon dama wax ni jàngat nga ci am dañuy waxtaan rek jàngat ma ci am mooy lépp loo xam c'est que déggin laa lay wax léegi baa mel ni ñaari xadis yi pour su waxtaan leen parce que foofu point boobu buñ ko leeralee après dina permettre ñi seetaan ñoom it ñu xam fan la ñuy taxaw dama bëggoon dama bëggoon expliquer rek loolu ma yàggali loolu rek dama bëgg leeral loolu dama ne cest à fi mu waxee ne li mu dama ko expliqué nit taxaw na di seetaan télé ñu ne diw de Aboubacar Chikao def na nangam am bombardé na benn jàkk ay jullit ñoo fa nekk Aboubacar Chikao def wala ñu def déclaration expliqué ne aaya bi nangam dafa nii dangam nangam nangam nit dégg ko mais bàyyi diine bi te pourtant day nekk ko xam dafa jàng alxuraan sax sax dama bëgg wax nii tey lépp loo xamante ni conception bi moo am solo ma dégg imam muy waaraate waaraate bi ni koy déggee moo am solo ñaata nit ñoo xeeb diine bi ndax Sénégal li ñuy yàlla mm-hmm. te dañuy ay nit yoo xam dañu leen raamal suñu waa ji dañoo doyee tuuti daanaka ay goro lañ fa yàlla te loolu dafa am nekk am yoo xam ne dafa ay mbir yu garaaw yoo xam te rapport bi moo ko sañ a wax moom su ko waxee ñu ne ibaadu day dafa créé ay day day day man xam nga dama am sëriñ ko man dama am sëriñ gëm ko ah. mm. dama gëm ni man dama gëm ni man rab bi mën na sauver musique nii mooy sauver diine Sénégal mën na équilibrer affaire macha allah tudd na sëriñam. Mhm. man ma tudd sama sëriñ. waxi am sëriñ. Mhm. rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. non léegi may indi la ñaari xadis waaw comprendre léegi may indi la ñaari xadis ma ko bëgg expliqué mooy ñun ñëpp ñun ñëpp. Karim mhm. ñun Seydina Muhammad sëriñ ñun ñëpp. sa sang boobu laa lay jox ñaari kàddoom. waaw waaw mu nga bàyyi ko mu ñëw. waaw bi ci njëkk xadisu eh, Abu Malik al Ashari la tudd ab saxaabi la. xadis baa ngi ci Buxaari xam nga Buxaari bokk na ci téer yi nga xamante ne moom la jullit ñi gën a dëppoo ci wéram mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na la yakunanna fi ummati aqwaamun dina ñëw ci ginnaaw sama xeet mm-hmm. ay nit ñoo xamante ne yastaxilluuna alxira walxariira walxamra walmaazif mm-hmm. dina nu daganal ya araamoon gis ku ñëw di jéem a daganal njaaloo nga gis ku ñëw di jéem a daganal la nga xamante ne moom mooy lan almaazif lan mooy maazif soo gisee man su ma yegee ci kàddu bi ma war a firi wàllug musique du ma ko bëgg njëkk firi mooy damay bëgg mag ñooñee njëkk ñu koo firi al imaamu dahabi mu ne al maazif huwa ismun li kulli ma yuzafu bihi mooy lépp loo xamante ne ñu ngi koy utiliser ci li nga xamante ne moom mooy wàllu musique soo demee ci ku mel ne ibnul qayim mu ne hiya alatu lahwi kulliha bila xilaaf mooy matériel yooyu gaa yi di lan di utiliser ci ngir musique neex mhm. mu ne yooyu lañ ci jublu ku mel ne al imaamul qurtubi mu ne innaha al ghina mooy musique sax ci jëmmi boppam ñii nag bi ñu faatoo ba léegi léegi mu jege ay juróom-ñetti téeméeri at mhm. wala junni at ñu gën a jege génération yonent sallallahu alayhi kon ñoom ñoo ñu gën a dégg texte yi ñooñu gën a préparé ñooñu gën a dégg euh, texte yi loolu mooy euh, bi ci njëkk benn bi tamit mooy li gën a euh, doy ci xadis bi mooy méngale gi yonent bi tudd njaaloo ba pare tuddaale musique xanaa comparé ba mu ko xaw a comparé loolu bokk na ci li gën a xajamal wàllug lan wàllug musique ñaareelu xadis bi pour ci gën a gàttal baal boobu comprendre ma mu ne dafa xa dafa dafa dafa xaraamal njaalo. Mhm. toftal ci musique waaw waaw toftal ci musique. xam naa ne na nekk fii bi maanaam ñoo tolloo quoi si si degré de. non non non léeg-léeg euh, léeg-léeg <laughs> euh, léeg-léeg tudd ay mbir. ñu nekk naatable. loolu day xajamal la ca des. même su fekkee ne lenn lu nekk. comme ni ngeen rek waaw fekk lenn lu nekk ak kiwam la. ak dara barke la wax ñuy wax waxu. musique nga jël jël musique yeeg yeneen affaire yëpp. mais mën na mu bàyyi ko mu terminer ak deuxième. xadis bi xadisu Imran bun Xuseyn la moom it ab saxaabi la. Mhm. xadis baa mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na euh, dañ dem ba jëmmi jamono yëngu suuf dina bëri. Mhm. ay catastrophe tey li ni ñi tuddee catastrophe naturelle maanaam dina bëri ci jamono léeg géej ñëw wan na ay dëkk léeg am fu suuf yëngu léeg-léeg montagne fa tremblement de terre yeeg volcan waaw eh, yonent nag kañ lay nekk benn saxaaba moo ko laaj mhm. qaala rajulun min al muslimin mata daaka ya rasulallah loolu kañ lay am ci ban jamono la mu ne ko ida zaharat al qinaat saa yu ñu demee balan ba ay waykat yu jigéen feeñ mhm. saa yu ñu demee ba musique fés ñu naan sàngara mu tasaaroo lool waaw mu ne jamono jooju ci yu mel ni lan yu mel gis nga ñaari xadis yi daanaka ñoom laa indi woon ci li nga xamante ne moom mooy bunti mu des nag benn tomb mooy lépp lu lislaam aramal rek mm-hmm. euh, bàyyi ko jaami-jaami ci nekk d'accord Oustaz euh, bëgg naa xam bëgg naa xam li Karim wax ak euh, fi seen divergence nekk yéen ñaar bi ñu tàmbalee waxtaan bi ba léegi mooy man li may def dama koy def parce que jàpp naa ne lu baax la ndaw laa te dafay jëriñ ay ndaw ni man mm-hmm. naam dama koy teg ci instrumental waaye da nga indi ay hadis ak ay aayo yuy firndeel ne loolu même bu ko Karim dee def mu baax mm-hmm. daganu te du sa du sa ay interprétation personnelle loo mm-hmm. mais léegi lu ma bëggoon xam ci lu la majeure partie euh, la question la question va être partagée en par vous euh, ngeen xool naka ngeen ma ci gindee mooy ñu bëri bu ñu naan la musique dagan na wala rab dañ naa la yonent bi sax bi mu jugee Makka di dem Medina. Mm-hmm. dañ ko daal di wayal. tëggal ko taala al badru alayna ah, na xeer te loolu defe naa am na. barakallah fikum euh, woy boobu ak façon gàttandu boobu. Mm-hmm. siiw na. Mm-hmm. léeg nga gis ko ci ay téere léeg-léeg nga jàng ko ci li nga xam ne léeg nga jàng ko léeg-léeg sax nga seetaan ko ci ay film waaye li wér ba wér moom mooy xew-xew bi ak nii mu amee amut. loolu waa amut ni ko defee baaxul benn ma ñëw nee la nag su amoon su amoon yonent bi mu ngi jug jëm ci ñoo xamante ne ay tuubeen lañu ñoo ne yegg seegul ci ñoom ànd ak ne message am am na lu commencé yegg si ci ñoom mhm. kon ñooñu mën na yegg fekkee leen noo xamante ne ki su ñëwee liggéey ci ñoom ndànk-ndànk loolu mais li tax ñu doon teeru yonent bi c'est parce que dañu xam li mu indi xam message am xam l'islam jëfale Tafsir imam dafa laal fu doy waar mhm. dafa yonent bi mi ngi ak yàgg ci ñoo xam ne ay tuubeen lañ mhm. est-ce que nga ba pare mi ngi yegg ci war a xëy na dafa leen war a defar ñu war a xam loolu dafa xaram Pape sàngara dafa xaramul woon de mhm. dañu koy xaramal ko ñëpp ko Pape Sidi Fall est-ce Sénégal dañu la wax ni la euh, nit mhm. mhm. taxaw di waaraate ah xoola mais def ay erreur yoo xamante ni naam xëy na sax aaya bi ni ñu koy waxee sax noonu la mais erreur communication bi fu ñu war a laal ci waara santé bi defuñ ko bu ñu maas ak génération bi dañuy nekk ci ay sango naka la sangoo set ak nooy tëddee gauche ak nooy tëddee droite ak waxuñ ci li nga xam mooy essentiel bi njomboxtal gi tax sénégalais yi xam ni yàlla yàlla dafa bind ñëpp pour ñu jaamu ko ñëpp dañu war a dellu ci yàlla imaam yi def euh, war a defuñu waxtaane comme par exemple suñu ñëwee si suñu ñëwee tey par exemple si xutba tey tey rek xutba jumaa yi xumaay mhm. nga foon lu waroon xutba bu ñu wax ci tabaski lan la ñu wax sama jumaa de tabaski lañ lan la ñu wax si imaam may ma tudd ci imaam bi wax ma ma woon suñu imaam bi ma jullee jumaa tey dafa doon wax ci tabaski xar bi li waral Ibrahima ni mu war a mel ni mu war a mel affaire mais loolu xam nga chaque année ñu xutba ko hmm. li ñu war a wax mooy yéen xale yu jigéen yi bu leen topp góor ñi di leen nax ndax tabaski bi ngeen takk ay greffage greffage dafa xaram mais dañuy nekk ci xar bi genn bi su guddee loolu chaque année ñu wax ñu ko nañ wax a lew wax nit ñi ne leen xar yi ngeen di yokk di yokk prix bi dafa xaalis baaxul nañ wax ñi ni gouvernement bi yéen c'est-à-dire c'est problème lan lañ war a wax c'est que foofu mooy problème bi xutba bi nag ñu Sénégal malheureusement diine bi ni ñu koy ni ko ni ñu ko war a xutbawee ni ñu ko war a waaraatee waaraatee wuñ ko noonu waaraatekat dañuy toog ci télé bi tegle seen tànk tus ngal bët def son mbasin jesner yu rafet jàpp aaya bi di ko firi ba pare di ci dosé te waxuñu essentiel bi mm. léegi man dama bëggoon juste rek pour leer la ne la rappeur bi li mu mën a def ci loolu mm-hmm. waratekat bi mënu ko mais rappeur bi mu ngi dugg si nopp xale bi ñu yëg ko ñu ñàkk ko yëg oustaz mm-hmm. tey ku ci nekk sa kër am na xale bu fa nekk euh, rappeurs yi la ñuy déglu nga yëg ko nga ñàkk ko bañ a yëg ñu ngi dem si internet bi di déglu rappeurs yi li ñuy wax donc bu rappeurs yi amee message bu négatif dafay impacter si société bi donc les préparer spirituellement c'est quelque chose de bien euh, ndax ñoom jàpp nañ ne lu ñuy def lu baax la parce que dinañ musique man la Karim in the building mais c'est dans le fun c'est dans l'univers de la jeunesse et puis mu yem ci loolu mais bu ma déggee Maher Zen mu way mu am instrumental ma dikk nga ni ma bu amee instrumental rek daganut même lu wax ja am solo ça me pose problème Talal Badru Alayna defe naa bu fekkoon ne niñ ko wanee ci film mm-hmm. waxee ko noonu ci ay téere yu bëri boo dikkee ne ma éradiquer nga loolu amut niñ ko defee noonu. ça sama pose un problème quelque part. dëgg la Moussa. Euh, foofu loolu pour pour tënk. Mm-hmm. daanaka mën naa ne samay kàddu mat na. Euh, Imam Malik dañ ko laaj. nee ko Medina mm-hmm. ñan nga xamee déglu musique mu ne ko foofu ñi ñu xamee déglu musique mooy kàccoor yi. ànd na ñun tey dañoo ñëw ngir leeral at jëf yi waaye jëmm yi taxuñu maanaam Karim moom ma gën a baax man loolu laa gëm. waaye man li ñuy wax mooy wàllu musique ba xam baax na kon ñu man tey ñëw ma pour juger Karim. déedéet déedéet. waaye li ma def ak ki koy déglu. waaw ñoo léegi soo ñëwee ci réew mi gone yëpp jigéen ñi ñi ci ëpp ñu koy lan déglu. Mhm. waaye déglu googu ñu koy déglu. loolu du lan du teg tegtale ne loolu la ñu war a déglu. demal tey ci jigéen ñi ak mag ñi ñaata lañu réer ci alquran mhm. ñaata la ñu réere ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam karim ju ñu lu am solo mooy euh, maanaam facteur boo xamante ne dañ ciy mën a lan joxe ay message man ci jàngale ay message mm-hmm. message yooyu ay nit jaar nañ fi joxe ay message yoo xamante ne euh, ñoo gën a rëy ci lan ci àdduna ci niti àdduna yi ak nitu diine yi fekk jaarul ci wàllu musique mm-hmm. waaw soo demee ci euh, côté adduna bi demal ci Malcolm X am na taxawaay bu mu am mm-hmm. ndax dafa àndaloon ak musique mais daa am fu mu jaar. ànd demal ci Cheikh Anta Diop. mais ah, waxu Malcolm X demal ci Nelson Mandela non misaal laa la jox rek. Mahatma ah, Gandhi et ainsi de suite. ay œuvre tey misaal ñu koy jàllale. léegi man foofu li may bañ mooy ne comme buntu la boo xamante ay message yu ciy jaar. Mhm. yoo xamante yu ñëw di wax ci jik pour jikko yu baax la waaye problème mooy ndax foofu la war a jaar. ndax loolu ñu ko fay jaarale mu nekk njëriñ ndax loolu man na tax mbir mi dagal mais léegi tekkiwul na loolu problème loolu ñuy wax baax na mais tekkiwul ne xaram na xanaa xaram dama wax dama wax ma tëj ma ma ma tëjal la tuuti rek nga jël yàbbi ci xanaa bala ngay tëj ma ma tëjal kooku tuuti rek bismillah nee ko yow moom mu ngi xool côté njëriñ Abdou Karim mu ngi xool côté njëriñ bi waaye côté rol lor yi tamit xool ko après nga gam-gam le ko imam xam nga man ma suñu waxtaan lu tax mu doy waar mooy man dama ñëw début bi dama j'ai été très clair dëgg la dama ni lépp luy jëriñ doomu dama ne man waa ok dama ne ñëw ma pour daganal musique mais dama ne lépp luy jëriñ doomu aadama mhm. fii ak l'au-delà ma ne loolu mënul xaram mm. parce que yàlla bi mu addo bi ah pour nga daw mhm. mhm. la léegi bu fekkee ne musique bi mën na tax ba nit dellu ci yàlla musique boobu mënul xaram mm. ah man nga yow yow indi wax naa la ko sànq da nga indi règle da bu am am solo non li nga wax am solo nga ne lu mën a delloo nit ki mais comme en tant que musique mën na dellu kon nag mën nañ ko kii noonu nga ko nattee noonu nag du imam même mu ñëw xam nga côté su la waxee loolu amaana mu ngi ci jublu mhm. mooy rab boo xamante wàllu musique raxu raxu ci lu mel na nga taxaw seen kanam ñoom wax c'est mooy yow lan nga mooy lan nga daal wala taalif non non même slam taalif dafa xaram de lépp luy instrument dafa xaram dama <laughs> ko wax dama ko sànq li ma ko doon ma ne ko bu dee nit lu xaram bu dee lu xaram mooy luy lor nit. Mhm. te contexte la laaj nit dégg na aaya alxuraan taxaw ko défendre di ci rey ay nit nit xam ko bàyyi te pourtant alxuraan bi moo tax mu bàyyi diine bi. Mhm. c' est dama ni yi ñoo am solo. ci mhm. jaamu yàlla parce que affaire bi aussi yàlla la. yàlla rahman rahim la dafa am solo lu jëm ci def lu baax. tu as parfaitement soo gisee coow lépp une minute ci waaw ñu déglu la musique bàyyi dem ci diine bi. koy def. waaw ñoo ndax ñoo euh, koy dégloog ki koy déglu yaa ngi déglu lu xaram ka koy def yaa ngi def lu xaram ñoom ñëpp ñoo ci yem léegi lan moo tax l'islam tere ko parce parce que Karim. tar na de. waaw Karim tudd na ay njëriñ. waaye man dinaa ko tuddal ñeenti rek. ci lor yi nga xamante ne mu ngi ci lan mu ngi ci wàllu musique. musique day tilimal xol day dox digganteeg jaam bi ci muy tudd yàlla. naka noonu tamit day yombal yoonu seytaane ci jaam bi. Mhm. loolu ay aaya ñoo koy firndeel. musique day yee li nga xamante ne moom mooy bànneex ci nit. Mhm. waaw. Mhm. day maanaam day yàq day yàq société. du musique yëpp ñoo yee bànneex des nag léegi Karim moom am na bu mu génnee loolu. mbirama eh, na ko jéem a layal waaw ah, balaa général la musique moom daganul ci l'islam <laughs> waaye way bu ànd il a été très clair euh, li oustaz wax Uh-huh. loo ci loo ci xalaat. non juste pour waxoon ni. quatre points yi mu énuméré. même façon bi muy wax su fekkee ne boobu la la daam wax. dagan na ak kenn ak al amin nañ la yëg su fekkee façon bii ñu koy defee man ñoom xam naa leen boobu taxul ñuy wax. imam man toog naa di man toog naa di animé rab ci animé rab ci rajo. Mm-hmm. Ah? suufi ki ibaab yi nekk Sénégal yëpp maanaam ñuy dund sunni yëpp di déglu. Mm-hmm. mais bu ma tegee musique man invité naa nit ci émission bu ma tegee musique day génn suñuy waxtaan mu dugg toog ma comprendre naa xam naa ñoom au fait lan la lan la bëgg exprimer dama wax ni ko man mi nga xamante ni maa ngi def loolu ba ciy xeex ba yàlla di ma ci dimbali ñu ciy taxaw diine bi man dama gëm ni man maa ngi taxaw diine Sénégal parce que kilifa diine responsable personnalité rek la mhm. man Abdou Karim Gueye kilifa laa ci hip hop bi dama mhm. yow da jàpp ne tey su du woon hip hop bi li ngay defal diine doo ko def non yow comprendre du ko yàggali képp kuy waaraate Sénégal koo xam yaa ngi ci rajo wala télé dama lance appel nañu fekk xale yi ci liñ nekk waxtaan ak ñoom nañ wax yonente bi toogoon ci néegam ak ci jàkka ji di wax jërëjëf nañ ko bàyyi nañ bàyyi ay musique bi du ko déglu boo déglu musique sax doo déglu boo xool sax doo gis ñoo mën a seppi il faut nga duur ci géej gi mën a seppi yaboo yi jën tëll xamee jën yi dimbali leen mhm. yàlla bu la mayee xam-xam may la alxuraan bi pour nga dimbalee ko xale yi da dem nga dugg xale yi fi ñu nekk musiciens yi seetaan lu tax mu yàq xale yi da kon ñoom il ñoom ñu wàcc ci bi dem fekk xale fi ñu nekk mën leen waar ñoom bu ko deful ñun rappeurs yi ñu def ko loolu kese di leen wax di leen wax wax yu am importance aussi je signale non am na musique boo xam ne Sénégal moom game rap musique moom léegi. j'aurais vraiment voulu que ñu ah. gën a am temps pour débattre ci xam naa ça va se poursuivre sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. gars yi ñu ngi impatienté wu pour retrouver ma attaqué ma Pape Sidi waxoo lii mm-hmm. waroon nañu wax lii. Mm-hmm. Euh, amis téléspectateurs c'est ici que va terminer cette émission Karim c'est quoi le message à l'endroit des hip-hopeurs parce que maa ngi dégg nga ni hip-hop bi ñuy def fii Sénégal léegi dafa haram tu as peut-être des raisons yu war a mën a tax nga exprimer woo ainsi. Euh, léegi ma bàyyi la nga lancer message pour yow ban hip-hop. moo baax bu weesoo bu la jëriñ ici et au delà naka la gars yi lan la gars yi war dindi ci hip hop bi pour hip hop bi ñuy def ku koy déglu mën ci jëlee plus de njëriñ que ngaañte ci sa wàllu diine par exemple rappeur bi am gàccee def loo xam ne man maa fi elle a ans sama taw macha allah elle me pose des questions man rus naa taxaw ci télé bi di rap am xale bu jigéen bu sol maillot de bain ak amee côté. Mhm. man rus naa taxaw di loo xam ne dama ciy fecc man rus di fecc mooy wane ci c'est-à-dire loolu foofu lañ toll léegi rapport yi tey boo seetee awadi daanaka am na 45 ans xumaan am na 40 ans fii am war na am 18 ans léegi dafa am message boo xam ne ñoom dañ war a xam ni ni koy joxee xale yi noonu la message bi exploité seen doom ay responsabilité la le bi nga xamante ne nag léegi ñëpp ci dugal seen loxo franc-maçon yeeg ONG yi góor jigéen yi loolu taxu ko woon jug rab ba muy jug xeexal dëgg moo ko taxoon jug man dama koy wax chaque fois sama sens yi rap jox na kàddu yàlla gëddam chaque fois dama ko sama sens yi maanaam dama bëgg ñu comprendre ni tey ñun rappeurs yi war nañu mën a siggi ci kanamu oustaz imam yi dafa débat ñoom nii hmm. parce que rap musique bu noble la nekkoon ay ñu def hmm. hmm. léegi nag dafa am Serigne Touba wax bu mu wax wax bu am solo mu ne doomu aadama parce que gars yi leen sonal loolu kese la de mu ne ñaari biir la am mu ne biir biiram bii nii ak biiru bàmmeelam mu ne sa biir bi yàlla dafa na dafa na la a ko mu ne sa biir bàmmeel la fa nekk yaa ko fay def mhm. léegi rappeur na ñoom dañoo jàpp ni seen biir bi nii ñoom ñoo programme li ciy nekk moo tax talatu dara ndax topp àdduna rek te sa bakkan bi moom moo ko mhm. loolu nag man message boobu laa indi lancé mhm. di leen wax ni nag Sénégal toll na foo xam ne actuellement ñëpp a ngi jug am na benn mouvement bu am doole bu jóge ci diaspora bu tudd one million boo xam dañuy def force la ñuy ñëw ñun ñëpp boole fédéré ñëpp collectif la ñëpp ñu jël Sénégal libéré ko yee ustaas yi yee xale yi teg Sénégal ci dëgg ëttiyeetoo dëkk bi waxtaanee ko jël dëgg teg ko nit ñi atte ko ñu ñu dox ci xam ne Sénégal charia moo fi war a am boo ko wax na nit ñi duñu la dégg dañ ah? ah. dafa xaraam du déglu li ci xale yi di wax euh, di ngeen dem fekk ji fi ñu nekk par exemple oustaz boo ko ne kaay dem concert pour déglu lañ fay wax wala gis ne nit ñi di danaan la yow sax yaa njëkk a wax non jamais de la vie tax ah, jàngoro boo ko ah, diagnostiqué doo xam noo koy saafarawee mm-hmm. la société souffre mm-hmm. mais ceux qui détiennent la parole de Dieu mm-hmm. n'y vont pas pour euh, xam naka la ñuy saafarawee loolu oustaz ma bàyyi la nga tontu ci laaj boobu te joxe waale sa kàddu gu mujj ak say ndénkaane ci mboolem ñu toggoon di la seetaan barakallah di euh, di wax ne li ñuy wax léeg-léeg ñooy bokk li ñuy wax mhm. waaye léeg day jàdd euh, defar ndabam noonu la waaw adduna <laughs> noonu la bindoo euh, parce que moom toujours soo li am ci musique yëpp moom soo dégloo kàddam da nga yëg ne moom nangu na ko mhm. te xam na li tax lislaam araamal ko mhm. ba nag am na pàcc bu mu ci jël am couleur bu mu ko jox gis ne ne su de su demee noonu amul problème loolu gis-gisam lay wax waaye waxul foofu gis-gisu lislaam <laughs> maanaam pour mu leer nañ beneen bi tamit moom mooy euh, li bokk na ci li gën a metti nag mooy jamono ji mooy jël musique xëcc ko dugal ko ci wàllu diine. Mhm. ba am ñu koy def ngir jaamoo ko borom bi subhaanahu wa taala loolu loolu ci jafe-jafe yi la bokk te moo gën a metti sax nag <laughs> ah, ah. waaw moo gën a metti lool mhm. ba nga dégg ku def ay genre musique am ne ku fanaanoo nekk ci lu la neex fajar bi soo ko dégloo ñu jéggal la bàkkaari guddi gi mhm. bëccëg bi noonu su jeexee soo ko dégloo ñu dëggal ñu jéggal la bàkkaar yooyu yëpp ay tappalal yoo xamante ne yu dugg ci islam na amul ci cosaan mhm. maanaam daal ci gàttal daal li may tënk mhm. mooy nanu yëg ne li mën a defar société bi mooy la imam Malik waxoon wala yuslihu axira hadi al umma illa bima salahu biha awaluha amul lu mën a defar nit yi tey lu dul li defaroon nit yi démb. Mhm. Eh, Abdou Karim gisee nañu yàggut ma ne ko nitu dëgg yi dama bëgg nga boole ma ci. Mhm. Mhm. loolu yaakaar yaa ngi koy fàttali. beneen ci terminal beneen bi mooy am na lu ñu boole. am na yu ñu nekk bokk ay programme nag rab bi bi am na taxawaay bu am solo bu mu amoon ci bi imam euh, euh, waaw ay waaw ay ay ndaw yu am solo yu mel ni Abdou Karim daf nañ ci taxawaay wu am am solo. te ñu ci taxawaay yooyu nii. dañoo mujj defat benn mbootaay boo xamante ne Abdul Qadir Mbàkke moo ko jiite <laughs> ah jubluwaay bi mooy fexe ba taxawu daara imaam eh. Aliou Badara Ndaw eh, ba mu dëppoog la nga xamante ne moom mooy jamono liggéey boobu Karim mu ngi ci université lañ bëgg eh, foofu noonu dañu bëgg université boo xam ne dañ koy jox waaye tamit di moo moom moo jaar fi <laughs> waaw lu ci diine wax nag toog di publicité ñu taf <laughs> ah, da nga jaar commercial de euh, euh, maanaa Dakar Plateau <laughs> dëgg la Sika Plateau waaw Sika Plateau Ndam a jaar commercial jëkku de euh, merci beaucoup vous àndee depuis Saint-Louis kon amis téléspectateurs les dés sont jetés vous êtes jeune vous êtes euh, vous avez été là en train de regarder votre émission Ma Génération sur la première chaîne de télévision privée du Sénégal li ñu bëggoon ci bi du werante mm. waaye wax li nga xamante ni mooy li am ce qui existe, c'est que le hip-hop existe, les jeune l'écoutent à fond, ils sont des milliers et des millions à écouter le hip-hop au quotidien te dara du leen ci dindi xam naa loolu moom dina jafe nga ne leen musique rap haram na beneen bi ci des moom mooy yàlla am na lu mu bind sa a traversé des siècles et des siècles mu ngi fi am na loo xamante ne seen diine obligation la ban hip-hop la ñu war a déglu ak ban hip-hop la ñu war a def ku ci nekk nag àdduna moom ay choix la yaay tànn lu la neex waaye li il alaaji bu saaxa doon wax naan lu bon bu ko ñëpp doon def du tax mu baax mm-hmm. lu baax bu ko ñëpp bàyyee du tax mu bon ñu ngi doon dalal tey oustaz euh, jàngalekat la bàyyi ko fële ci Fass nekk euh, imam euh, di oustaz Mouhamed Kane mm-hmm. ak Abdou Karim Gueye ñu ko gën a ci turu Karim Xurum Xax ci émission Ma Génération sur la stv ce fut un agréable plaisir pour nous de vous avoir présenté cette émission rendez tout est prêt pour vous donner votre émission comme tous les vendredis et à vendredi prochain bu fekkee tabaski nañ ba pare bu ma xar bi mbëkkul dinaa ñëwaat pour ma génération ma génération ma génération ma ma ma génération Ma génération, ma génération, ma ma ma ma ma